murtajan minnatun lana jariun seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu ñu dellu siwaat seen émission bi ñuy wax madinatu ilmi ñu di ko amalee ci seen 24 actu tey ji nag ginnaaw buñ leen ndokkeelee ci weer wu tedd wu màgg wi ñaanal leen yàlla defal nu jàmm te nangul nu seeni koor te nangul nu tey nag ñu fas yéene waxtaanee ak yéen li nga xam ne moo di muurum koor xam ngeen ne ñu ngi jub li nga xam ne moo di euh, it gi ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne muurum koor la li nga xam ne ni la ko boroom xam-xam yi tërale ak ni nga xam ne lañ ko war a génnee muuru koor nag farata la farata ci képp koo xamante ni ku ko man la Abdullah ibnu Abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla farataal na muurum koor ci ki nga xam ne mën na ko li tax ko nag mooy way ñàkk yi nga xam ne. ay way ñàkk la yoo xamante ni amuñu lu nu feetoo ci bis boobu nga xam ne moo di bisu it muy sakkaatul fitri eh, li tax nag nga xam ne mooy ñu farataal ko bokk na ci tamit nit ki ñu laabal ko laabal kooram xam nga na koor gi dafa am ay takk-takk yu muy am ak i gàkk-gàkk yoo xamante ni koor dina koy àndaale ci nit ki du ñëpp nag waaye am na ñoo xam ne seen koor noon lay demee ndax yenn saa yi ñu wax loo xam ne waruñu koo wax wala ñu dugg ci loo xam ne war na koo dugg wala ñu jëw wala ñu amaana sax ñu kaf ci kaf yoo xamante ni yu xóot la yooyu yépp nag sunu borom day bëgg a sellal sa koor moo tax sakkaatul fitri googu day laabal koor gi day laabal koor looloo tax ñu santaane ñu génne ko ñi koy génne nag borom xam-xam yi wax na ne dañ koy génne lu jiitu ñuy julli ji lu jiitu ñuy julli ji it gi lu jiitu ñuy julli am nañu wax ne ñaari fan mën nañ koo génne lu mat ñaari fan pour euh, jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo bu la neexee tamit mën nañoo ne fi nga xam ne weer wi feeñ na ci guddi gi ba kera ngay julli ji mën nañ fee génne sakkaatul fitre waaye nag bu fekkee da ngaa julli ji ba ñëw nag day fekk ne loolu wees na na moo tax ñu bëgg ñu teel koo génne ndax li tax ñu bëgg ñu teel ko génne mooy woy ñàkk yi nga xam ne ñoom ay woy ñàkk lan te bis boobu day ay feet ndax jullit gi ñaari feet yi rek la am ci lislaam muy feetu tabaski ak feetu korite bu ko defee nag way ñàkk yooyu dañoo bëgg ñoom ñu jox leen seen àq jooju nga xam ne dañ leen ko yoreel te bëgg ñu mën a feetu moo tax ñu bëgg ñu teel leen koo jox ndax boo ko teelee jox génn ñaari fan amaana waa ji bu ci bëggoon a xotti wala mu bëgg cee defal ay njabootam dara dina ci mën a xotti moo tax ñu bëgg ñu génne ko bu ko defee li nga xam ne moom mu lan ko war a génnee fii ci réew mi mooy bu fekkee la ñuy dunde la ca gën a siiw mooy lu mel ni ab ceeb wala dugub wala dara xeet yooyu nga xam ne Sénégal li ëpp ci li ñuy dundee buñ koy génne nag ñu ngi ko war a génne ci lu toll ci ñaari kilo ak liibar borom xam-xam yi am nañu wax nag lu gën a yées loolu waaye li gën a dal xel te gën a lëng daal mooy ñaari kilo ak liibar ngay génne bopp bu nekk ki koy génnee tamit mi ngi ko tàmbalee ci boppam moom da ko war a génne bu ko amee moom borom kër gi nga xam ne mooy dundal njaboot gi moom baay bi daf ko war a génne bu koy génne boppam la ko war a njëkk a génneel teg ci soxnaam teg ci doomam teg ci tamit ay yaayam wala baayam wala ñooñu nga xam ne moo leen di yore bu ko defee ku ci nekk def ko koy génneel su fekkee génne woon na ko sax ba matul daf koy tàmbalee ci boppam moo tax ñu bëgg mu tàmbalee ko ci boppam. bu ko defee kër gi tamit bu fekkee jabar ji soxna si aman na koo génne na ko génneel boppam Euh, ki nga xam ne moo di doomam doom ji am na xaalis ba am alal mën na koo génne ku mën a génne rek da koy génne amul ci ñum ko ki ñin ko war a génneel wax nañ ne xale bu ndaw bi nga xam ne dafa juddu ci bu séentoo weer wi weer wi feeñ sax dañ ko war a génneel am na ñu waxe tamit ne xale bi nga xam ne yaayam dafa ëmb sax bu fekkee bëgg nga lu baax aw yiw mën nga koo génnewaaleel xañ na du lëngut ci ñu war koo génneel waaye li gën a dal xel am na ñoo xam ne daal dañ koy génne ndax yiw win ci amaale mooy bu fekkee su a dafa ëmb mën ngaa génnewaaleel xale bi nga xam ne juddoogu ñu génnewaaleel ko murum koor loolu du ko yàq ndax lu baax la rek ah, bu ko defee tamit bu la wax nañ ne ndax mën nañ koo génne xaalis wala mënuñu koo génne bu njëkk nag moom ku nekk xam na ne cosaan li du woon xaalis dañ ko daan génne ci li nga xam ne moo di lin daan lekk mooy yonante bi ñaari ñetti loxoom la tibb ba mu kii te euh, tibb ko ñeent loxo yi yonent bi salaa salaam euh, bin ko nattee boo demoon màkk tey am na pot yoo xamante ni pot yooyu dañ koy kii mooy pot yi nga xam ne borom xam yooyu gëstu nañ ko ba ne yonent bi salaa salaam lim nattoon ay loxoom nii la tool nga xam ne boo ci nattee lu mat ñeent teg ci beneen muy ñaari kilo ak liibar yooyu xam naa ne sénégalais yi dem màkka euh, waroon nañ koy indaale ndax ñu gën cee jàppandi waaye teewul ñaari kilo yi daal ak liibar ko ko génne dal na xel. xaalis bi ñenn ñi ne déedéet waruñu koo génn xaalis ñenn ne xaalis kay moo gën ndax nit ki bu fekkee da nga koo génne ceeb wala dugub wala dara amaana moom su demee di ko jaayaat la mu koy jaayee borom bitig yi wala mu koy jaayaat keneen buñ ko doon jaaye kilo trois cent buñ demee ay kilo deux cent la wala mën nañ koo def kilo fanweer sax wàññi ko moo tax ñu bëgg ñu ne kon daal comme noonu la léegi nañ ko jënde xaalis nañ ko génne xaalis xaalis bi tamit wax de yàlla dal na xel ndax ki nga koy jox ginnaaw moom bu ko boo ko ci joxoon lu bari faaw mu jaay ko bu fekkee da cee bëgg a togg wala mu bëgg cee def bëgg cee jënd ndawal bëgg cee def nangam nangam xam ngeen ne ceeb bi nga ko jox wala dugub ji mënu koo soq ci bis bi wooli ko def ci ay nangam bu dee ceeb lay tamit lum mu jëndee diw lu jënde ndawal yooyu yëpp da koy soxla moo tax ñu bëgg daal ku ko mën a génne xaalis nga xool xaalis bi ñaari kilo ak liibar ñaata la ci xaalis ñu ne la nàngam la nga joxe ko loolu mooy li gën a dal xel. bokk na ci tamit ñi nga xam ne dañ koy génne ku ko génne tamit nga teel ko yóbbu jox ko seeni borom jox ko seen borom ndax nu teel a jot ci li nga xam ne moo di seen muuru ndax ñoom ñu man cee feetu man cee def li nga xam ne tamit mooy li nga xam ne mooy feet bi nga xam ne dafa am bokk na ci tamit ñu ne ndax buñ ko génnee mën nañ koo toxal maanaam génnee ko fii ci réew mi yóbbu ko ci meneen réew boroom xam-xam nee bu fekkee am na ñu ko yeeyoo kenn du ko génne di ko toxal te jàpp naa ne réew moo dem di nga fa fekk ñoo xam ne ñu ñàkk la ñoo xamante nii dañuy kii ndax bis boobu dañuy bañ ñi nga xam ne ñoom tamit ay faqir lan ñoo xam amunu ñu yëg ne amunu bis boobu dañoo bëgg ñëpp xam ne am nan ñëpp seen xol ubbeeku féex euh, wax nañ ne ndax ñi koy génnee tamit ndax waa ji koy génne bu fekkee amut xaalis ñu ne bu fekkee ne jàpp na ne moom bu subaa bu ko lebee fan yii dina am xaalis bu ko fayee na leb pour génne muuru koor ki nga xam ne tamit nee na bu fekkee day génne muurum koor dese lu mat benn dépasse wala ñaar maanaam ci masala natt saako moom desee ci ñaari dépasse boobaa da koy génne kon ñi nga xam ne kon muuru koor daanaka xawuta wàcc kenn bëgguñu tamit nga jox ko boo ko génnee di ko jox ñi nga xam ne yaa leen di dundal ku mel ne sa yaay wala koo xam ne sa rakk la wala nangam koo xam ne yaa koy dundal bëgguñu nga jox ko ñooñu noo bëgg nga jox ko ñi nga xam ne ay néew ju doole lan yoo xam ne da leen koy jox rek ndax yàlla moom moo leen ko jox. bokk na ci muurum koor tamit li nga xam ne mooy taxawaayam ci ñi nga xam ne war nañ koo génne te ku ko génne ba noppi tamit danga ko war a génne rek ngir jëmmi yàlla. Euh, mi nga xam ne moo la ko digal ak yonent bi salaa salaam waaye waroo cee wut xeej ji ak seen koo xam ne da nga naa kii lañ ko war a jox wala kii du ma ko jox wala kee dama ko déedéet ki nga xam ne rek daf ko yeyoo rek kooku dang ko ko war a jox kon muurum koor lu faratal loo xamante ni nit ki waru koo saax caaxaane loo xam ne day laabal sa koor laabal sa bakkan loolu kenn waru koo caaxaane nit ku nekk daf ko war a génne ndax yàlla moo ko santaane santaane yàlla nag du doon lu ndaw moo tax santaane bi yàlla doonut lu ndaw rawatina yonent bi salaa salaam jot li ko ne nan génne muurum koor muurum koor bu fekkee da nga am ay surga surga bi nekk sa kër yaa ko war a dundal masala mooy mbindaan mi wala ki nga xam ne yaa koy dundal kooku tamit da nga ko war a génneel muurum koor ndax yow yaa koy dundal bu ko defee boo ko génnee tamit bu la neexee mën nga koo jox kenn nit kenn koo xamante ni moom nga koy jox bu la neexee tamit nga xaaj ko jox lenn li ñenn ñi keneen ki nga jox ko loolu tamit ba tey nangu nan ko ci muuru koor kon daal lii bokk na ci lu gàtt loo xamante ni bëggoon noonu koo wax ci muurum koor ndax koor ku nekk xam na ne bokk na ci bokk na ci liñ ci war a dolli mooy juróom benn fan yi nga xam ne dañ koy woor juróom benn fan loolu tamit yonent bi salaa salaam daf koo digle daf koo digle mooy bu nu wooree ba wari juróom benn fan yoo xamante ni da ko war a woor juróom benn fan yooyu nag waxunu nga tegale ko bu la neexee nga ko soo waree ba ci suba sa bisu it bi kenn du ko woor waaye boo waree ba ca suba sa bu la neexee tàmbali ko juróom benn fan bu la neexee tamit nga jëlal ko boo wooree tey nekk suba waaye daal bu mu génn weeru sawaal wi nga xam ne mooy weeru korite wi bu ko génn bu la neexee nag nga woor ko imaam Malik sax dafa bañ ku ko tegale maanaam waaw imaam Malik moom dafa bañ ku tegale juróom benn fan yi ndax nee na day bañ ñu jàpp ne biddaa la moo tax daa bëgg ñu xaw koo sorele tuuti koor gi ndax ñu bañ koo sëselew defe ne dafa farata ak defe ne biddaa bun kii la moo tax moom donte addis bu leer la mën nañ koo tegale waaye bañ biddaa am ci moo tax kon mbokk yi jàpp naa ne daal loolu it aw yiw la ndax ku ko woor ku woor weer wi day mel ni woor nga euh, li nga xam ne moo di maanaam douze mois yëpp te ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di leen sant di ñaan yàlla na yàlla nangul suñuy koor nangul leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah